Bienvenue sur Salam Vision. maa nga jëm Parcelles seeni unité 21 en face terrain basket bi dem seeti yi Ahmadou Bassirou Ndiaye Nguérane borom bi may ko lool ci xam-xam xam-xam boobu nag mu ci dimbali nit ñi mu daal di leen defaral ñetti ubbeeku yoo xam ni da nga koy sangoo maanaam mu di ay saabu yoo xam ni am na ñetti niveau boo xam ni saabu bu njëkk bi day def ci yow ubbeeku ba noppi def ci yow protection ndax yéen ñëpp soxla ngeen protection ñaareel bi dafa lay ubbi ba noppi indi la wërsëg ñetteel bi nag mooy niveau bi gën a kawee ñetteelu saabu bi ubbeeku bu leer nañ ba noppi nag àndandoog li nga xam ni liy dugg sa loxo day des ci sa loxo di toog ci sa loxo loxo kon Ahmadou Bassirou Ndiaye li la yàlla may jërëjëf ci ni nga ko bokkeek jaam yi rawatina nag ñi nga xam ni dañoo am problème mu njaboot nga xam ni nag ay góor lañu am nañu kàttan waaye mënuñu am doom mu dimbali leen ndax léeg-léeg góor ak jigéen dinañu nekk ci sëy duñu am doom ñu ne rek ku jigéen ki la fekk yow ku góor ki it daa war a faju kon ñëw leen seet si Ahmadou Bassirou Ndiaye mu jaarale leen ci produit boobu muy wax Nasirullah Nasirullah nag dina la traité bu baax yow ku góor ki nga xam ni koo jege rek di nga ca mën a am njaboot Bassirou Ndiaye Ngirane Parcelles Assainies unité 21 janoo ak terrain basket bi téléphone 76 589 93 67 wala 78 469 24 30. Oustaz Mouhamed Mbaye ñu ngi lay nuyu di la ziar. hélas maa ngi lay delloo ziar noo def. Euh, ñu ngi sant bu baax ak ñu déggoon ni euh, ki nga xamante ne mooy Cheikh Ahmed Cissé. Mhm. yoon daf ko teg loxo. mu nekk ci loxoy yoon. yow sa nit la est-ce que ñu ci wax lenn lu ñu leer suñu bopp jamono ji waaw waaw euh, mu ngi sant yàlla ndax yàlla def na ni démb ci àllarba bi mu ngi woon plateau falaa nekk ba minuit une heure du matin tey gis ngeen maa ngi nii léegi laa génne fii nga xam ne mooy central donte ñoom ñu la may accès nga gis ko mais mu ngi wax maa ngi dégg ñu ngi ngay jàllale ay kàddoom am naa ci loo xamante ni na naqari na ma ndax euh, tey ji yoon à chaque fois rek sama gis-gis man mooy nañuy wax nit euh, artu Mm. bu ñu la artoo gis ni teggi wa sa tànk ñu doog a jëflante ak yow neneen yàlla sax dafay jéggal jàmm mais am na lu ma ci neex parce que tey démb bi ma demee plateau fekk naa fa euh, fukki nit yoo xam ne ay étranger lañu mm. bokkuñ suñu réew mm. dégguñu olof anglais la ñuy làkk bi ma demee démb gis naa ko ak ñoom mm-hmm. mais euh, distance bi mu yendoo ak ñoom tey di leen xamal lislaam di leen xamal lislaam bi ma ñëwee tey euh, ki ma fi fekk mu ngi naan ma ñoom dañoo pare pour coupe ay deux heures du matin ak yooyu Euh, pare nañu ñoom fukki nit yooyu tuub dugg ci lislaam parce que seex am na lu mu leen convaincre ba duggaleen ci lislaam mhm. loolu laa ko wax sànq ma ni ko waa ji waxal ma ni ko jaar bi mu fi jaar am na lu yàlla namoon te mooy fukki doomu aadama yoo xamante ni dañ leen tuubal bu fekkente ni nag ku feebar ñu yóbbu la hôpital médecin yi piqûre la nga dee kon kenn dootu fa demati c'est-à-dire hôpital pour dalal xelu doomu aadama la waaye faj ko mu wér mu génnaat mhm. police itam noonu la gendarmerie noonu la ay nit la ñu yoo xamante ni dañ leen orienté rek taggat la ci yoon waaye mu ngi ci jàmm mu ngi ci stabilité mu ngi wóolu xelam mu ngi am confiance ci xelam. mais fukki nit yooyu étranger yi ban nationalité lañ lan lan la wax. Euh, nationalité nigérien ay nigérien la ah. yàlla sedd na ko. ak sama cofeel ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam du ma wax lu dul dëgg du ma sos wax wallahi def naa yàlla muy sama seede ci guddi àjjuma bi ñëw naa ci àllarba gi gis naa leen. Hmm. bi ma ñëwee tey ma yëg ni daf leen di tuubal. te itam xam naa fi ma toll ci réew mi du ma waxal hmm. du ma tuumaal yi tamit yoon parce que bu ñu ma way ni ma foo ko teg ma xeeb sama bopp hmm. waaye wóor na ma ni leer na ma ni idée fi toll nii ban heure moo jot hmm. euh, daanaka euh, ci alxames bi onze heures et demie moo jot tey ji fii ak une heure du matin deux heures du matin ñooñu nga xamante ne tey Cheikh war na leen tuubal dugal leen ci l'islam grâce à anglais bu mu communiquer ak ñoom ak l'islam parce que dañ ko laaj wax leen lislaam ñooñu daal di nii dañ ci tënku daal di tuub comme li oh. alquran wax rek sa yajal allahu baadal usri yusran mm-hmm. yàlla nee na bu jafee buñ demee ba ci kanam indi yombal mm-hmm. di ko ñaanal moom it di ko ñaax ni ko boo génnee gën a defaraat waxi ni mm-hmm. gën a sàmmaat kàddu yi ndax ku am ay soppe da ngay natt sa wax da ngay segg sa wax ngir sa jote ak nit ñi gën a euh, ñu gis ni euh, ci li nga xamante ne lañ koy waxaan na lañ koy porte plainte muy mbirum jumaa yi lim ci waxoon waaye dañoo dégg ni PV bi daa gën a diis ndax dañ koy jiñ ay mbirum xawma koo jigéen ak ay vidéo yoo xamante ni day yàq xale yi ci wax ju bon euh, ndax loolu am nga ci lu leer. Mm, waaw bi ma ñëwee démb déggaat wax jooju dama xaw a jaaxle. Mhm. parce que wax ju ma ci déggoon mooy wax joo xamante ni Mamata plainte na ko ci. te man mii di ànd ak moom lu bari wax naa ci ak moom bu waxee wax ju naka sudul noonu dama naan ko Cheikh ni nga waxee ànduma ci ak yow. Euh, alkalimatu tayiba sadaqa wax ju rafet sarax la hmm. del fexee ngay wax wax ju rafet nga koy woo mën nga wax wax ju rafet du tee nga jaay sa yëf hmm. ndax boo ne awra ñëpp xam nañ ay awra te itam góor ngay jaay jaayoo jigéen nit ñi dofuñu hmm. parce que bët bët la tudd gémmiñ ne awra nga rafetal mais comme yàlla lii la nam moom ci moom bi ma yëgee ñu dolli ci yëfi góor jigéen man dama ci jaaxle parce que nekkuloon ni loolu moo taxoon mais bi ñu demee ci PV bi ci lu ñu ma wax te ni euh, dafay dooleel góor jigéen euh, dañ ko ci dolli affaire bi jaaxal ma trop waaye daal euh, mu ngi noonu doy na waar comme réew mi ñun ñëpp ñoo ko bokk te damay wax ni ñaanuma yàlla génne sama gémmiñ safaan bëgg naa ku ma xool di gis ci man yar moo ma gënal xam-xam waaye daal yàlla na nekk jàngat ci moom boo xam ne day gaaw génn continuer waat liggéeyam ñee tamit continuer seen liggéey euh, yoon daal maa ngi leen wax ni bu ma sañoon ku juumati buñ ko tëj wala buñ ko buñ ko punir yenn punir nañ ko conseillé avec suuf si am na bu gisaatee nga def ñu bu boobaa nag ñu daal di teg dogal ci yow ndax tere mu tere mu të bàyyil mu gis mais tere mu të nañ koy jiital di ko nàmmee doomu aadama bi di ko ko wax ba mu dëgër nag bu boobaa dañ ñaan waxoon nañ ko mu doo ko bàyyi jërëjëf jërëjëf Oustaz jërëjëf bienvenue sur Salam Vision